asalaamaaleykum euh, lettre bii dama ko bind jagleel ko président de la république Macky Sall ginnaaw bi mu jëndee avion soixante milliards monsieur le président mënuma comprendre ngay dem di yalwaan pour ñu baal la bor te ngay jënd avion buy jar soixante milliards monsieur le président bët du yenu waaye xam na lu bopp attan monsieur le président oto bi ngay dawal di may baax Mercedes mën naa jënd oto ministre yu nekk ca France yëpp benn ministre Sénégal oto bi muy dawal mun naa jënd gën caa néew juróom benni oto ministre yu France li ñu am bariwul waaye yéen ñi jiite seen bopp dong moom leen intéressé président noo mënee jël soixante milliards di ko def ci avion tey jéggalu tey sàkku tey yalwaan ñu baar la bor bërki démb gouvernement bu Japon signé na ak Sénégal di leen dogat dogateel bor boo xam ne Sénégal daf ko war a fay Japon muy boru gàcce laaj ma ñaata la quatre-vingt-treize millions de francs fa mënu leen ko fay ngeen di laaj moratoire tey nga jënd avion wu soixante milliards monsieur le président maa ngi lay bàyyi loo xel ci ne bi ngay jënd avion soixante milliards kilo yàpp yegg na ci quatre mille francs bi ngay jënd avion soixante milliards juróomi litre dëwliñ butéel bi jóge na quatre mille cinq cent dem sept mille francs bi ngay jënd avion soixante milliards saaku ceeb jóge na treize mille monsieur le président yegg quinze mille francs ñooñu di góor góorgóorlu pour jënd loolu ñooñu xalaatuñu avion soixante milliards bu ñu kenn wax nag ne avion président daf ko soxla man sama position lu leer la Sénégal soxlawul luxe boobu Sénégal soxlawul avion présidentiel réewu Maroc moo ñu gën a jege ëpp ñu alal amuñu avion présidentiel réewu Allemagne ñoo ñu gën a naat dañuy dimbali Sénégal amuñu avion présidentiel balaa ngay xalaat avion présidentiel xalaatal flotte bu taxaw boo xam ne dina mun a dimbali say compagnie aérienne ngir mun a def assurer desserte yi ak yeneen dëkk yi monsieur le président ak 60 milliards. est-ce que xam nga ne suñu abri provisoire classe yi suñuy doom di jàngee ñu koy xadd ay sàkket ak ñoomin seen day jeex ci Sénégal six mille six cent classes en abri provisoire pour changer ko fi dindi ko fi éradiquer ko fi on a juste besoin de 33 milliards boo ko dindee ci 60 yi mu des 27 monsieur le président est-ce que xam nga 27 milliards yooyu mun nga ci tabax 5400 cases de santé bu ko defee. jigéen ñi dootuñu muccati ci kaw ay saret gone yu bari ci village yi dootuñu dellooti dinañ leen mën a sauver monsieur le président est-ce que xam nga ne ak 60 milliards mun nga créer 2 millions d'emplois ci wàllu agriculture 1700 forages mën nañ ko def ak 60 milliards bu boobaa dinañu irriguer 4 450 mille tool diggante Jolof Bawol Kajoor Siin ak Saalum événement yii fi am mars bi ñu génn Moussa Dramé dëkk ndoofaan ñàkk ndox ca Ndofane moo taxoon mu ñëw fii di Nooraan Nooraan googu mu doon def si ci lañ ko faat fii ci Ndakaaru daf fi doon marchand ambulant monsieur le président xamal ne sénégalais yi ñu ngi lay bàyyi xel xamal ne sénégalais yi dañoo soxla ku leen yërëm sénégalais yi dañoo soxla ku bàyyi xel ci seen i jafe-jafe ak seeni i monsieur le président avion boobu nga jënd 60 milliards ngir sa nguur ngir sa bànneex ngir di ci gundaandaat maa ngi lay xamal ne en deux deux mille vingt quatre incha allah su ma nekkee président de la république dinaa jël avion boobu jaay ko ngir régler ci problème mu sénégalais yi ku ñu yërëmul ñun yërëm nañu suñu bopp. sénégalais yi seeni soxla tey jii la gën a tar tey jii la réew mi gën a metti ndax dañ ngeen leen jaayoon yoonu yokkute yoonu yokkute googu. tey ngeen nërmeel réew mi jëmee ko ci yoonu yàqute c'est dommage c'est vraiment dommage